yàgg. non mënut a yàgg. li ma la mën a xamal mooy du def cinq minutes. non a yàgg xam nga li tax warut a yàgg. Zarko il est le premier expérimenté te xale bi il est le plus jeune waaye mu ngi bëri mbër mu saay saay mu ngi bëri ka daje woon ak ka daje woon ak Pape ka daje woon ak Dafa ka daje woon ak Sels ka bëri woon Guy gi ka bëri woon ak ka bëri woon ak Sa Thiès daan mbay Guy gi daan Baye Mandione daan Ada Fass bari ko jël bari na moo ñaay attention Fadel. waaye dañoo ba ci Dieng TV nga xam ne ndaanaan la te dafa indi seree tey. Zarko su téye boppam combat bi mën parce que Dieng a commis le même erreur bi mu daje Quench bu kaw su téye rek bërëb bi dafa tëju te Zarko faay boobu naan na ko ci moom. parce que Zarko n'a rien à a def. waaw moom war a def. est-ce que Zarko dina ñëw jël yenn certaines responsabilités yi gëmuma ko. yaakaaruma ne Zarko day xaar ndax mënewul xaar. waaw ndax Zarko li mu mën mooy fital ci ci adversaire. waaw su ko deful def erreur. dama woon ni suuf saa doog waaw suuf si waaw waaw suuf suuf sa seen kër laa ko fekk tey ñu jël suuf si dugal ko ci cin. jël ay buur di dëbb suuf si. dëbb di ko dëbb ba mokk suuf soo soo nekk nii. Eh, kon dina dëbb nee na ma nee na ma sax. diggante yàq jëf ak mbot ak sa déem laa dëkk. doomu Ndakaaru la doomu Ndakaaru la. waaye mu dajale doomu Ndakaaru. waaye ki ma dajale doomu Ndakaaru la doomu Ndakaaru. la su Zarko su Zarko daanee jéen lu garaaw lay doon ci lam bu yoonam lay topp xale lañ. cooy ci lam parce que jéen fi gars yi nekk dafa war a ah. Saal kayit fi gars yi nekk dafa nekk. waaw moom fa la jugee. mbaa xamul ñoom ñaar si daan tey. say portes day ubbeeku waaye da ngay xam ne Zarko ñaaw bu ndaw nga koy xaar. waaye am na ngi yow. waaw ñaaw bu ndaw mu tegale ñaari combat yi. Zarko. waaw waaw waaw rek. warul waaye combat bu lay doon. Zarko mu ngi ci digg duudu. Eh, Amina li nga sant lan la Amina bu Dak People sama jëwriñ Bamba Faye mu Serigne Saliou moom Serigne Cheikh Béthio Thioune Bamba Faye bu Cheikh Amar maa ngi laa ziar Bamba Zarko pare na waaye la ko ramassé nga jël ca kaw dama moo ngi noonu arbitre baa ngi wax ñaari mbër ku ci nekk mu di la wax règlement yi ne bañ ak làmb nangu duudu ay buur géwél làmb man na moon reportage ñëw naa duudu <laughs> kon moo tax ma ni buur ari jeen kayre Zarko ñu ngi waxante rek ñoom ñaar yaakamte nañu arbitre génn seen diggante arbitre baa ngi xool est-ce que ñoom ñaar kenn takku ci dara lu niin wala luy jafe wala luy mbàtte mbaa luy gàcce. Fadel Dieng Kaïré Fadel arbitre baa ngi leen di fàttali dernier règlement yi. arbitre day sifflé tuuru. Dieng Diouf Kaïré moo ñu war kanam Zarko moo ñu war gannaaw. bu ko jubal match moo koy Zarko Alanda Grand Kolo Fouta Grave Thier yàkkamti na waaye dana fi nag arbitre bi dana leen poussé waaye dégguñu waaw bi sible na diggante Diène Diouf Kaïré ak Zarko combat à distance la amina ay bëgguma liman pour géwél bu ñu daje jeex Zarko day abordé même expérience bi Quench abordé woon ak Diène Kairé ndax bu téye boppam Diène du ñëw bëre bi dafay tëju jaadu la Zarko Diène Diouf Kairé Diène xam nga tournée mbër la woon ah ca mu ngi léegi tool dara bëreeguñu xeexuñu. làmb toll bi kéema rek ay dégg. moom Zarko jox na ko cër. waaye cër bi ko jéem jox est-ce que ëppul. Diène na Zarko cër trop. Thiès sport de combat d'accord ma loolu. arbitre bi leen naan bëri leen match jeen mépp na bu ñu dajee mu jeex. Zarko Diène Diouf Kaïré. ay eh, dëggal Diouf. ngeen bu yàqoo daw géwél. ma Diouf Maral Diouf dafa dëj mën na cee am Maral Diouf nga ni kuraan sax kuraan sax sax nit ay c'est le buur bi atte na Sarko eh! nee na arbitre loo ngay atte waaye leen ñu bëri wala combat bi atte tooñ na jéere nga yokk bëre bi tey Zarko bett nañu bëri ah parce que tey dafa dañ dafa ko respecté tey da koy xaar yéen mbir la waay dem Zarko Diène Diouf kaay. loolu la 23 la. Sofia lay takk. fa la jël si ne Belvédère. ca Dalifort. ay sama rakk ah, jeex na. jeex na jàppante nañu jël jàpp na jël jàpp na jël jàpp bi baax na jël ngi for Zarko Zarko ngi bañ ñu ngi bëri ñoom ñaar Zarko am na njëm Zarko jàpp na jël jàpp na luy xew luy xew luy xew looy xew ñu ngi damante ay loxo ci suuf jël di ko xañ lu mu bëgg dafa diis teq ba dafa diis dafa diis fayal bu forcé daanu ma lu teen bu forcé daanu. fanaan bu forcé tëdd de. bu jeen jum sarko. da nga jàppante. jeen a nga jàpp di xalaat ko di xañ. teen li mu jàpp baax na. lii daanu ko. lii daanu ko lii daanu ko. daanu ko. daanu sarko dama seetaan. lii daanu ko. lii dama koo seetaan lii daanu ko waxoon naa la ko la waxoon lu la la waxoon du ma waxoon du ci lamb du ma waxoon du ci lamb duudu eh, eh, néew na fu may juumee ci lamb fale wax naa la ko de bi mu ko jàppee nee naa la lii daanu dama koo seetaan bi muy bëri Pape Mor Lo seetaan ko bii bëreeg dafay trois seetaan ko bii bëreeg Mbisaan seetaan ko bii bëreeg Baye Mor Gaynde seetaan ko bii bëreeg ak bi ko jën jàppee ma ne la daanu ko. bi nga daan ma daan ko bi ko déedéet dama ko xam. bi nga daan ma bi daan maa ko tekkal ngem ba ma la jibi sam teekul diis ci diggante ba ondinga lii daanu ko déedéet. mais Zarko fan la jëm. Zarko moo koy daan jikkoom. bëgg a yàkkamti ak bëgg a def ko noonu. dama jëla jaloore. déedéet dese na ko ñax bu fa la jëm. na ko xale yi ma waxoon naa la ko bi ma la jàppee waxoon naa la ko Diouf dama dem këram sax xool ko ne ko jeex na ne ko Zarko bu man buur jëwal Sadou San may sa ngoon la Ndiaye Bira Fall si nga njëre dama ko de par ca pare ba ca Lambaye may wax na ko Zarko génneel man ak yow Fakhalaan man ak yow Ahmed Boudaya man ak yow Bayal Lawbe man ak yow sunu gerte tubaab gi ah Zarko dafa la jaloore